amati nañu mbégte àndaat ak yéen mbokk téléspectateur ak internet yu Leral TV ci seen euh, émission li askan bi di dund ñu ñu koy euh, defee jóg dem waxtaan ak eh, askan wi duñu ñu yem rek ndakaaru dañuy génn eh, tamit dem ci yeneen dëkk yi tey nag ñu ñëw fii ci Diofior eh, ci centre de santé bi fi nekk ngir waxtaan ak ñoom ndax am nañu ay jafe-jafe yoo xam ne bëgg nañu ko fësal ñu bëgg waxtaan ak ñoom ci loolu bokk na ci bâtiment bu fi nekk bâtiment bu yàgg lool sax ñoo xam ne ëpp na téeméeri at menacé wu ruine ba tax ay malade yu fi nekkoon ñu obligé jëlee leen fi yóbbu leen ci bâtiment bu yees bi ngeen di gis suñu gannaaw ginnaaw yéen a ngi koy gis ci image donc loolu xam naa dinañ ko waxtaane ak kenn koo xamante si ni euh, bokk na ci li nga xam ne moo di euh, bërëbu fajukaay bi nekk fii euh, ci Diofior mais également lu jëm ci wàllum jumtukaay yu ñuy fajo dinañu ci dikk ak ak ak moom donc sëñ bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax tur sant bi. ñoo ngi lay fay. maa ngi tudd Mamadou Ba. nekk le secretaire exécutif du comité de développement sanitaire bu centre de santé bu Diofior. di nuyu ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur Leral TV. di rafetlu aussi émission bi déplacement bi yëpp. Euh, ma toogal nag ñi nga xamante ne yaakaar naa ne Sénégal yëpp ñoo leen xam. muy les éclaireurs et Sénégal. Euh, ki nekk euh, à ma droite nekk ki nga xamante ne. moom moo yore communication bi. communication waaw euh, président Abay aussi. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. di la nuyu di nuyu équipe Leral TV yëpp. voilà xam naa dinañ dinañu ñëw ak ak ak ñoom kenn ku ci nekk dinañu taataan ay ay kàddoom mais d'abord euh, ñu ñu ñu ñëw ci menace bâtiment yi may wax sonk ne menacé na ruine mu nekk ne à côté d'ailleurs gis nañu ko ci image mu nekk vraiment yoo xam ne sax d'ailleurs commencé na daanu est-ce que mën nga ci ñëwaat parce que bâtiment bu yàgg la. Mhm. Mhm. Euh, voilà euh, nga permettre ma ko rek ma def euh, une petite historique ci li nga xamante ne mooy le centre de santé de Diofior mooy li nga xamante ne 91 à 93 ci la ko éclaireur yi am benn camp de chantier à Diofior ñu bokk ko ay ay des partenaires finlandais ñu liggéey ko fii ci Diofior yaakaar naa ne boo waxee depuis 93 à 2023 am nañ 30 ans d' boo xamante ne. Euh, hôpitalu Diofior existé na ko euh, te mu nekk la xamante ne nag aussi moo tax ma wax la ne toogaay bi tey bu ñu gisee éclaireur yi rek war na ñoo xam ne eh, ñoom aussi euh, léeg bu lekkee alop te ko gërëmee coy ñoom ñoo tax tey bu Diofior am centre de santé ma bëgg a wax ne nag aussi ñun le centre de santé de Diofior moo nekk chef lieu district boo waxee district moo boot yi nga xamante ne mooy poste de santé yu nekk ci gox bi yëpp yaakaar naa ne euh, cinq communes yi nga xamante ne le centre de santé moo leen boot euh, population boobu kenn xamul nu mu toll to comme ni nga ko waxee sànq bâtiment bi yàgg na di menacer ruine protection civile sax ñëwoon nañu def seen gëstu ne bâtiment bi wóoratul kenn kenn waratu waratu cee nekk mais nag malheureusement amuñu ay moyens yoo xamante ne ñun si suñu bopp mun nañ koo tabax loolu moo taxoon boobu ba léegi ñuy xaarali état bi pour mu jàppale ñu léegi bala nga àggale bëggoon naa ñëw foofu rek nga baal ma parce que yaa ngi wax cinq communes yoo xamante si ni fii la ñëw di faju ci centre de santé bi mu toll wax nga ci historique li nga xam moo di centre de euh, ñu gis bâtiment bu yees bi ñu leen tabaxal fee ngeen nekk fa déjà yaa ngi may wax sonk ni ma maternité kese la xam naa di nga ci ñëw mais bu fekkee cinq communes euh, la la ñu ngi ñëw lépp bootu ci li nga xam ne moo di hôpital bi centre de santé bi comment naka ngeen di def pour euh, faj jàppale leen ci seen wàllum wér-gu-yaram parce que bâtiment bi euh, peut-être maternité bu bu ndaw la ak également yeneen service yi fan la nekk. Mm-hmm. Euh, voilà euh, yaakaar naa ne déplacement service yi yàggut mais nañ wax ci bâtiment bi nga xamante ne ça menace ruine depuis des années il y a de cinq ans yoo xamante ne protection civile ñëw nañ fi laa wax def nañ alerte wax ne bâtiment bi wóoratul. Euh, boo boo gisee xam nga commune commune commune Diofior nu mu toll euh, boo gisee commune Fimela nu mu toll commune Palmarin nu mu toll commune Djilas nu mu toll commune Loul Sessène nu mu toll ak dayo bu ñu am am na sax euh, ay villages yoo xamante ne ñu ngi ci biir géej bi voilà ñooñu yëpp bootu ci hôpitalu Diofior avec nga gis koo xamante ne par exemple day matu jël gaal wàcc jël oto ñëw ba hôpitalu Diofior nga fekk bi bâtiment boo xamante ne yow sax boo boo boo hospitalisé fii sa du dal xam nga ne faj aussi xel bu dal la léegi euh, situation boobu yëpp waa Diofior nekk di ko dundee il y de cela cinq ans ñu def ay alerte def euh, fu ne dem nañ fa bind nañ administrativement mais ba léegi amuñu sax benn réponse boo xamante ne c'est convaincant bu jóge ci état pour euh, yeesal li nga xamante ne moo moo fi nekk. Ah, ah, amul leen réponse mais est-ce que mën nañu wax que ne am na réponse parce que bâtiment bu yees bee ñu leen taxawal nest état moo leen ko moo waaw euh, bâtiment boobu. Euh, mais des na apport la mais apport bi des euh, na apport la mais c' était en 2016. avec en Marie Coll Seck bi nga xamante ne doomu doomu Diofior la laa mën a wax ndax mu ngi dëkk Djilor boo waxee Djilor yaakaar naa ne à huit neuf kilomètres de Diofior la ñoom aussi ñu bokk ci ñi nga xamante ne ci district Diofior moo leen boot moom aussi depuis 2016 ci la moom la voté. li nga xamante ne mooy mooy financement pour hôpital bi ñu ñu gën ko defaraat mais yow boo yow xam def nga tour bi gis nga ne 2016 ba léegi euh, euh, bâtiment yi di traîner benn bâtiment lañ livré muy maternité bi maternité bi gis nga ko sànq xam nga ne euh, bu ñu ñëwee tey hôpitalu Diofior bi nga xamante ne moo boot les les cinq communes nga wax ne maternité kese moo nekk fi fi nga xamante ne ci ci territoire hôpital bi lu des service yu des yëpp dañ leen déplacé délocaliser leen foo xamante ne population bi lu ñuy dund instant bi euh, supposons da ngay dem à à à nu mu tuddati à à trois cent kilomètres astafurlah à trois cent mètres euh, nga dem defi foofu benn perfusion après ñu ne la da war a def analyse analyse yi nekk à 200 mètres. yow nga dox nga war a dox loolu yëpp xam nga loolu. hôpital bi fii maternité fi nekk. hôpital bi instant bi maternité bi moo fi nekk ak labo bi. mais service yi des yëpp dañu leen a délocaliser déplacé yóbbu leen ci. te sori na ay à à 300 à mètres euh, ñenn yi nekk à 2 à 200 à 100 à 100 mètres ndax nekkuñu nekkuñu fenn waaw ndax boo jëlee comme par exemple administration bi. Euh, mu ngi nekk ak au des jeunes xam nga ne foyer ak hôpital Diofior war na def 300 mètres beneen bi am na benn waay boo xamante ne dama koy gërëm au passage mhm. dafa tabax maternité am ba euh, centre pédiatrie am ba pare hôpital Diofior soxla euh, moom mu bàyyi lépp ba waroon ko ubbi mu bàyyi lépp mu ne mu ne doomu Diofior la dama koy àll waa Diofior ñu jëriñoo ko Euh, kon foofu foofu lañ déplacé li nga xamante ne mooy euh, médecine bi bon mairie bi aussi def la ci ay effort euh, lu leen ñu fi nga xamante ne moom mooy ancien pharmacie benn bâtiment ñu yóbbu li nga xamante ne mooy dentiste bi waaw kon xam nga ne ñun actuellement des services dispersés lañ lañ lañ am lu ci gën a lu ma ci gën a métti mooy coow bi bu mu jubee ndax façade est bâtiment administratif bi dafa daanu ci nawet bi mm-hmm. ñu def alerte def des plaidoyers partout Euh, dans le monde mais nag euh, état bi à travers le ministère de la santé mu déplacé benn équipe ànd ak euh, waa Jëm waa Jëm ñoo yore tout ce qui est construction ci côté ministère de la santé ak nu mu dati ki nga xamante ne mooy direction de la construction moom mu ñëwaale et état bi indi ko jofa mais honnêtement parlant amuñu un vrai projet boo xamante ne pour defaraat hôpitalu Diofior la ñoom daal dama yaakaar ne Euh, lu leen soxaloon mooy ni que ñun nañ génn bâtiment bi comme wóoratul ñu génn bat voilà bu ñu génnee maladie ñoom mm-hmm. ñu si seen responsabilité mm-hmm. après ñu door dem di waxi li nga xamante ne naka la ñuy def nag ba mun a tabaxaat hôpitalu Diofior kon xam ngeen ne ñun lu ñuy dund instant bi dama yaakaar ne génocide humanitaire la hôpital bi dañoo bàyyi waa Diofior ci li nga xamante ne moom mooy euh, galère totale moom moom la moom moom moom moo fi nekk kon nag euh, dañuy yuuxu wàllu yóbbuwuñ ko ci état kese dañ koy yóbbu ci ñi nga xamante ne au au moins ñoom am nañu yërmaande ci waa Diofior lu ñuy dund actuellement ñu ñëw jàppale ñu may remercier nag di gërëm ñi nga xamante ne mooy éclaireurs yi ñoom dañoo dégg coow mi indiwaat benn équipe ñu ñëw xool état hopital bi ñu remonté ci seen chef yi seen chef yi aussi ñoo ngi remonté ko ci bi euh, ci hollandais yi yaakaar naa ne hollandais yi am na quelque chose lu ñuy préparé pour hôpitalu Diofior kon dama leen di gërëm au passage mais nag état bi aussi na def ay effort xam ne ñun waa Diofior dañoo bokk ci li nga xamante ne ci Sénégal euh, soxna si man à tout moment dama koy wax waa Diofior ñoo gën a neex a dimbale ki nga xamante ne problème bu mu mënti am bu ko mënee régler ci ci ci ci ci biir néegam da koy régler ñun on chaque jour dañuy cotiser di defar ay wax naa sànq état bi day tabax rek équipement yi doomu doomu Diofior ñoo koy def. te ñun aussi xaa xaaruñu lu bari ci état xam nga construction bu nekkoon ne ay des des des petites millions des petites sommes waa Diofa dañuy cotiser def ko ndax loolu suñu habitude eh, léegi nga baal ma foofu bâtiment yi nga bâtiment bi nga xam ne moom menacé ruine est-ce que ñu ngi koy tabaxaat jamono ji wala dañ ko bàyyi parce que wane nañ ko ñu ñu fermé ko jéemaguñ ci dara. jéemaguñ ci dara moo tax ma la ne amul un projet fusé. écrit clair boo xamante ne état bi proposé na population Diofior nee leen ne d'ici temps ñu tabaxal leen hôpital bu bees amul ak service yu ñu yu ñu déplacé aussi est-ce que tëgguñ ci yëgagu leen yéen ñu ci def benn jéego pour peut-être euh, euh, réunir euh, les moyens jéem ba fexe boolewaat li nga xam ne moo di maternité bi ak peut-être labo yi nga wax entre autres parce que déplacement bi day metti ci ñi nga xam te sin dañuy ñëw fii peut-être ci maternité bi wala dem def analyse entre autres non pour pour le xam nga xam nga jéego bi yëpp mooy lan la moo nekk nga am benn projet figé bi nga xamante ne euh, namm la defaraat hôpitalu Diofior hôpitalu Diofior bu ñu ko defaraatee rek service yëpp dañuy si siwaat ci biir hôpital bi mm. mais tant que loolu amul xamal ne service yi de rang dispersé la nekk ci biir ci ci ci biir ci biir dëkk bi ci biir dëkk bi te loolu aussi arrangé wul sax ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk le comité de développement sanitaire xam nga lu tax ndax ñun euh, population bi dañuy feebar ñoo faju si jënd ay ticket financement euh, ci ci ci ci petit yooyu ci loolu ci recette yooyu ci loolu la ñuy commencé di def des petites euh, lu mu jël fonctionnement hôpital bi foofu loolu loolu moo ñuy dimbale ci fonctionnement hôpital bi mais nag yow par exemple boo ñëwee Diofior ñu ne la labo mu ngi fale hospitalisation mu ngi fale xoolal c'est les pas ngay def rek ñu nekk koo xamante ne da ngaa yor malade loolu nekk sa bopp bi nga bëgg di def ay pas ay trois cent ay trois cent mètres loolu aussi dalay metti dalay naq ti préfère que nga dem beneen dëkk boo xamante ne euh, boo duggee ci hôpital bi rek nga am lépp mhm. kon fréquentation hôpital bi day gën di wàññeeku mhm. loolu yëpp day day day day soo day day sooxe li nga xamante ne mooy fonctionnement hôpital bi. Euh, maa wax sànq aussi ci ci lu jëm ci wàllum euh, jumtukaay yi nga xam da ngeen ko yittewoo ci ci ci ci centre de santé bi loolu lan nga ñu ci mën a wax est-ce que am ngeen ay jumtukaay yoo xam ne peut-être soxla ngeen ko te amu leen ko jamono ci lu bari mhm. lu comme lan ak lan. Euh, équipement sànq wax naa la ne état bi day day tabax rek. Mhm. équipement. Euh, nu mu dati ñun population bi le CDS population Diofior à chaque fois dama leen di gërëm ndax bu ma bindee rek ma ne leen dañoo soxla ay lii dañoo soxla ni nga gis ku nekk sa doole lu mu yem nga indi loolu sànq wax naa la ne am na coupouse bu nekk ci biir doomu Diofior moo ko indi ak i lii ak i leneen ak i leneen yaa gis ñun soxla nañ équipement ndax bâtiment yi ngay gis nii ñu waxoon ne nag le 31 mardi prochain ci lañ koy livrer xam nga ne état bi ngeen gis bâtiment yi peut par respect nag ñoo ngi xaarul mardi. bii bâtiment bu bees la. waaw bii bâtiment bu ñu war a livrer. Euh, bu war a livrer la mardi prochain. foofu bu paree lañ fa déplacé. du suba mooy du suba mooy. Euh, lundi ginnaaw suba la mardi. mooy mardi. Mhm. ginnaaw suba lañ war a livrer. bii dañ fi dañ benn service. waaw fii moo war a nekk euh, urgence bi. urgence bi beneen bi parce que urgence moom a ak ak ak maternité ak leneen waaw euh, ñun lu ñu gën a soxla xam nga ne zone bi dafa nekk zone boo xamante ne accident dafay bari mhm. te boo waxee accident day deret day tuuri mhm. te li ma lay wax nii ñun chaque jour anémie aussi dafay bari mhm. chaque jour euh, da ngay gis ni ñi di wax di dugal ci biir groupe yi besoin de sang besoin de sang boo ñëwee besoin de sang rek boo ñëwee ba ci hôpitalu Diop sax ñu dool la ñu door a wut benn oto yóbbu a Fatick à cinquante cinq kilomètres pour nga dem maye foofu deret après ambulance bi jógaat aussi dem dem jëli deret boobu. kon ñun soxla nañ li nga xamante ne mooy banque de sang boo xamante ne tey bu ñu bu ñu nee ku soxla joof yoon nag des patriotes purs lañ nekk. boo dugalee tey ne rek euh, nu mu dati euh, ay patriotes purs et durs boo boo boo waxee ne tey par exemple boo waxee ne tey rek dañoo dañoo soxla euh, deret nga gis de beaucoup de volontaires ñëw taxaw pour maye deret kon moo tax ma wax la ne sànq ñun dañoo neex a dimbali. ndax dañuy dimbale suñu bopp xam nga olof Ndiaye moo ne dimbal ci loxo loxoy borom ñun nag suñuy loxo dafa yore ay dimbal yu bëri kon état bi moo ñu war a population bu mel nii boo leen amee discipliné ñun duñu toj duñu def dara ah léegi ñooñu bu ñu amee tuuti rek aussi dañuy def duñuy dañuy def suñu apport personnel kon ñun dañoo soxla banque de sang boo xamante ne zone bi dafa nekk zone boo xamante ne accident yi dafay bëri kon bu ñu amoon banque de sang am aussi li nga xamante ne des services yoo xamante ne bu ma la nee hôpitalu Diofior mënuñoo tabax nit war nañ koo am radiologie am na amoon nañ rajo mais rajo bi doxut rajo war nañ koo am ambulance ambulance yi waa non ambulance yi gis nga ambulance damaa wax ne seconde position la suñu service bu ñu ñëwee dootuñu évacuer nit te ñun bëgguñu évacuer dañoo bëgg voilà képp ku fi ñëw fajoo fii wéree fii dem ñibbi mais ay nekk fii di ay cinquante cinq kilomètres ay ay soixante quinze kilomètres à tout moment nga koy daw te xam nga ne hôpital bi aussi ki nga xamante ne malade la day fay essence pour dem euh, euh, nu mu tudd di dem faju feneen yaa ngi kon loolu loolu loolu nekkul lu gën ambulance nekkul lu gën lu gën mooy ñu tabaxal ñu des service yoo xamante ne dina répondre ak norme yi nga xamante ne mooy les besoins de de la population mu am aussi benn mbir moo xamante ne état bi dafa war a saisir ci opportunité bi maa ngi koy wax gis nga pétrole dafa feeñ Sangomar mu ñu waxee Sangomar Jifeer Jifeer bokk ci ci zone boo xamante ne hôpitalu Diofior ci la bootu mhm. kon yaakaar naa ne loolu war na mun a tax nga xam ne hôpitalu Diofior mooy hôpital bi nga xamante ne moo moo poot loolu yëpp loolu war na mun a tax ñu tabaxal ñu euh, nu mu dati euh, unité yoo xamante ne mhm. mun na répondre leen norme même ku fi ñëw nga xam ne war nga war nga fee mun a fajoo ba wér te doo dem loolu daal moo moo nekk loo xamante ne honnêtement parlant euh, ku ñu ci jàppale ñu jën merci beaucoup en tout cas ñu ngi lay jaajëfal euh, ñu ñu nga joxal ñu suñu waaj sànq yaa ngi doon nga fàttali ñu turam waaw baal ñu fa maaleykum salaam baal ñu fàttali waat ñu tur bi euh, présenté wu Mamadou Soare Thiam nekk Mamadou Soare nekk chargé de la communication fii nii ci groupe local Diofior éclaireur Diofior waaw que mën ngeen ñëwaat ci seen ci seen liggéey pour leeral askan bi ñuy saytaan fii ci centre de bi. voilà comme ni ko président Ba waxee centre de santé bi foog naa ne biñ koy defar éclaireurs yi dañ cee def liggéey bu am solo parce que quand chantier bi biñ ko fi andi éclaireurs yi dañoo campé woon ak waa Finlande waaw en 91 taxawal li nga xamante ne mooy hôpital bii nii te foog naa 91 93 ba léegi. mën nañ ne def na trente ans te depuis loolu aussi éclaireurs yi bàyyiwuñ li nga xamante ne mooy centre de santé bi fu ñu woowee éclaireurs yi aussi ñu ngi teew ba noonu problème bi di posé donc je pense que nii éclaireurs yi am nañ liggéey bu am solo ba nga xamante ne def nañ ko fii nii si centre de santé bi parce que campé ak ay finlandais pendant presque une année taxawal centre de santé bi kon ñu xam ne ñooñu am na am na am na luñ luñ andil waa population Diofior donc bu ñu wootee nañu dañoo bëgg réfectionner li nga xamante ne moo di hôpital bi bon je pense que nii dañ ciy sawar pour ñëw jàppale leen jàppale leen te xam ne fii aussi ñun suñu dëkk la Diofior donc je pense que ni euh, luñ ci def rek suñu bopp lañ ko defal du coup ñu gis ne hôpital bi dafa di hôpital ba nga xamante ne hôpital bu mag la du bu ndaw parce que ku boot cinq communes hôpital boobu hôpital bu mag la waaw donc du coup ñu bëggoon vraiment état bi ak ku mun ti doon nga jàppale population Diofior parce que sonn nañ comme ni mu ko waxee déplacement yi métti na voilà ñoom li ñuy daj sax ñoom mënuñ ko expliquer parce que di dox ay 300 mètres ci malade imagine nga évacuer benn malade jógee si si ndox mi jël gaal wàcc jël oto ñëw ba Diofior aussi ngay dox si ay différents locaux yoo xamante ne voilà day xaw a métti pour population bi. donc ak nu mu mën a gaawee parce que wérgu yaram aussi dafa di lu lu sensible. ñu bëggoon tamit ay partenaires yoo xamante ne mën nañ cee jàpp jàppale ñu si liggéey parce que ñun tamit duñ tàyyi di di liggéey ngir hôpital bi nii. Mhm. depuis loolu ñu ngi ci te duñ ci mës a taay. Mhm. bu soobee yàlla. Mhm. comme ni mu ko waxee ñu ngi koy ñaanal. incha allah li ñuy mbóobal si hôpital bi maanaam ñu defar ñu defaralaat ñu bâtiment bi nga xamante ne mu ngi nii comme ni ñu jëlee image yi sànq. ñu ngi gis ne muy commencé daanu et tout. Mhm. ñu jàppale ñu si ba ñu taxawal ko. d'accord voilà merci ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar. waaw si jàmm. alhamdulilah. waaw comme ni ko yi waxee rek euh, j'espère que ils ont tout dit. Mhm. bon boo gisee situation hôpital Diofior bi. micro waaw. Mhm. ko gis rek xam ne. mu ngi ci anam yoo xamante ne mooy loolu. mais malgré ça apporté ngeen ci seen touche comme ni ko sa sa naataango bi wax. waaw waaw ah ñun on est des jeunes yoo xamante ne dañoo dañuy yëngatu ci développement. Mhm. te éclairer aussi boo ko déggee mooy éclairer. Mhm. bon ñu nekk benn mouvement boo xamante ne à chaque fois loo xamante ne day yëngu ci développement lo suñu localité rek dañ ciy dugal suñu loxo. mouvement bi kañ ngeen ko taxawal. Ah, mouvement bi euh, mu ngi nekk mouvement mondial. mais bi muy ñëw fii si Sénégal Sénégal c'était en 1937 37 bon on a des kii grands aussi mhm. ñoo xamante ni ñoo fi nekkoon mhm. mouvement bi aussi daa am benn lien la mhm. day am ñoo xam ne dañ fiy nekk euh, tàggat ay ndaw ndaw yooyu ñëw aussi ba nekk seen place noonu lay demee depuis en 37 bu 1937 bi mu fi ñëwee depuis Sénégal boobu ba léegi aussi muy continuer di dem aussi fii à Diofior aussi mouvement bi daa nekk benn mouvement boo xamante ni dañ ci day def lu am solo ci biir dëkk bi ndaxte mouvement bi aussi à chaque fois day tàggat ndaw yi ci loo xamante ne mooy développer seen gox ba tax na nag instant yi hôpital bi amee ay problème à fois bu amee ay voilà dañ ciy dugal suñu loxo ndaxte boo gisee hôpital bi aussi buñ koy defar même Finlandais yi nekk ñëwoon pour defar hôpital bi il y avait des il des avait des éclaireurs ñooñu ñoo defoon collaboration avec les éclaireurs de Diofior ñu def fi benn camp de chantier camp boo xamante ne a chaque fois éclaireurs yi dañuy jóge seen camp dañuy di campé ji yóbbu seen matériel seen bagage dem loger foofu ci benn école à chaque fois ñuy xëy di ñëw ci hôpital bi di liggéey ba hôpital bi taxaw aussi loolu participation boobu noonu boo gisee éclaireurs yi def ko aussi ñun aussi les anciens ñun ñu suñu anciens yi def loolu aussi tàggat tàggat ñu si loolu. bañ egsi fi aussi hôpital bi à chaque fois bu amee problème dañ dañuy ñëw pour taxawu ko waaw dañuy ñëw pour taxawu ko. voilà kon mën nañ mën nañu wax ne au delà de de de li nga xam ne moo ne apport bi ngeen di def ci ci centre de santé bi am na la beneen taxawaay également boo xam ne yéen a ngi koy def ci diwaanu Diofior. oui mhm. exactement ndaxte ñun aussi dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ni Diofior rek moo ñu ñor. Mhm. ak tout bi quoi. Mhm. mais au niveau de Diofior aussi du ci hôpital bi rek la ñuy taxaw dañuy def partout même ci marché yi ci biir population bi aussi à chaque fois dañuy invité même les parents pour seen doom intégré ci mois bi ñu tàggat leen ñu gis nañ aussi instant yi euh, société bi ñu muy demee aussi il y a beaucoup de xamante day yàqu ci xal xale yi aussi moo lool te ñun dañuy former les jeunes former leen ba xamante ne ba nga xamante ne aussi fu ñu mën a nekk rek mun a mun seen askan ak seen réew loolu aussi dañ koy def ci dëkk bi aussi dañuy dugg ci quartier yi aussi def suñu apport def des causeries des té débats loolu yëpp dañ koy def dañuy xool benn situation boo xamante ni benn actualité lay doon ci biir dëkk bi aussi dañuy dem ci quartier yi jege leen ñu def ci des débats indi ay solutions aussi voilà même au niveau des écoles aussi dañ ciy taxaw aussi au niveau des mosquées dañ ciy def ay des setal ay des balayages tout ñun daal bàyyi ñu waaw ñoo ngi fépp daal loo xamante ne daal day jëmbal kanam suñu dëkk dañ ciy taxaw. merci voilà Mamadou ñu ñu ñu jeexalee ak yow bu fekkee rek am na loo ci loo ci bëgg a dool li xam naa dina ñu jël maire bi également balaa ñuy jeexale émission bi comme ça moom tamit mu euh, euh, prononcé wu ci situation bi nga xam ne moom moo nekk actuellement ci centre de santé bi. voilà euh, merci beaucoup yaakaar naa ne. Euh, vous avez tout dit hein voilà leeral nga wax <laughs> leeral nga wax aussi. Uh-huh. Euh, sama gars yi leeral nañ lu bëri. Uh-huh. ci li nga xamante ne mooy seen activité. Uh-huh. Euh, mais aussi damay wax ne tey buñ la waxee ne le député. Euh, bi nga xamante ne xam nga département boo gis ñaari député lay am euh, le député bi nga xamante ne c'est un député nekk un secrétaire élu à l'Assemblée nationale. Euh, dafa lañu nekkal fa askan wi aussi. nekkal fa askan bi. Mhm. askan wi Diofior di dund lii yëpp ak li nga. teg parce que bëggoon naa bëggoon naa ñëw ñëw foofu. dama bëggoon na xaar ba gisanteeg maire bi. Mhm. nga nga luñ ko dañuy wax en wolof sàqame. koy waxee. jiituma ci mais bon c'est pas grave parce que mën nga jox dinañ ci dikk ak ak maire bi aussi parce que mm. ay autorité mënuñu nekk fii mm. ñu den leen dara ba pare mm. euh, Diouf yor di am euh, situation bu bu bu metti bi quand même mm-hmm. Mm-hmm. pour euh, pour dire vrai Euh, problème bi bu mu amee euh, man man man sama bopp maa jël sama téléphone woo ki nga xamante ne mooy le député nee ko ne hôpitalu Diofior bâtiment administratif bi façade est bi dafa daanu mhm. bëggoon naa nga ñëw nga jàppale ñu ñu wutandoo solution boobu c'était en quelle année boobu ren la nii ren mais nag euh, ci li ma gën a métti mooy moom dafa ñëw lee mu régler situation Diofior mais mu gën ñoo indil problème problème bi mooy bi mooy dafa ñëw mhm. ne ñu maa ngi xalaat un centre de santé secondaire à la xoolal euh, yow am am nga problème am nga am nga centre santé ba pare mu am problème léegi nga defal boobu ba pare booy xalaat nag nga gën a yokk doole wala nga génn nga wutal ko rakk nga door ko wutal rakk mais yow doo am euh, doom mu feebar nga koy wutal rakk voilà voilà <laughs> to man maa ngi wax ne maa ngi wax ne mosumaa gis wala mosumaa dégg damay seetaan assemblée début à la fin fi nga xamante ne problème mu hôpitalu Diofior ñu ngi koy waxtaanee ci assemblée nationale. mais mais mais tey tey Momadou am am ngeen euh, bâtiment buy menacer ruine ngeen jékki-jékki ngeen am beneen bâtiment boo moom ko taxawal est-ce que vous n'avez pas cherché xam ba xam peut-être député yooyu am na luñ ci am na jéego buñ ci dox voilà. Euh, xam nga wax naa la 2016. 2016 mhm. boobu moom nekkagul député. 2016. 2016 mil la ñu comme ci la financement bi génn. waaw xam nga Sénégal lenteur uh-huh. administrative la am. Uh-huh. mun nañ ko mun nañoo mun nañoo financer 2016 nga toog ba 2019. Uh-huh. door a jo door a gis ay construction ay construction boobu sax man 2016 bu may wax nii boobu man nekkaguma le le secrétaire di comité de développement sanitaire. ndax man 2023 euh, bi moom laa ñëw. yaa ngi gis mhm. Mhm. mais nag dama lay wax ne mhm. son magistère bi nga xamante ne moom mu ngi ci ci ci ci ci ci nu mu tati buñ ko falee ba léegi mosuma dégg fu muy waxee ci biir assemblée nationale di plaidoyer pour la population population yi nga xamante ne ñoo ko fal ndax man mii mun naa cee wax lu bari ndax dama bokk ci ñu ko fal d'accord moom moom laa voté pour mu falu mais nag mosuma jooyal dara ñaari ñaari député lañ ñaari député kenn ki mu ngi axe axe Tataguine ba Fatick kenn ki ndax suñu maire yi ñoo boole woon wax ne président de la république dañoo bëgg nag euh, député boo xamante ne day bokk ak si Ndios moon Palmarin ndax ñun bu ñu amee problème ñu mun ko koo wax directement mu dem yóbbu ko assemblée nationale ñu mun ko débattre mais nag malheureusement loolu moo nekk lu amul ma wax la leneen euh, au delà de la santé mhm. euh, ndax ñun aussi comme ni ni ko sama naataangoo yi waxee mhm. ñun dañuy yëngu ci développement mhm. tey bu ma la waxee ne le pont de Simal le pont de Simal pont de Simal. Simal bi nga xamante ne élèves yi foofu la ñuy jaar pour euh, jàngi fi nga xamante ne waa Simal boo waxee Diofior Simal boo waxee arrondissement Fimela nga xam ne ñun bay la ñuy dundee pont boobu sareet sax mënatu faa jaar ñoom pour ñu dem dëkk li nga xamante ne moom lañ jiwoon. Mhm. problème la problématique la pour ñoom. moo mhm. wax la aussi boo demee zone Loul Sessène commune de Loul Sessène bu ñu waxee axe euh, Loul Sessène à Faoy tali goudron moo fa nekk goudron boobu dafa daggoon. population yi ñoo jël ay saaku mhm. pour defaraat ko mais ñun man lu may laaj man lu may laaj sama bopp mooy ni que ñun xanaa population Kaffrine population Touba population Dakar ñoo ñoo ñoo ëpp doole population Diofior Ouass ak population Fimela ak Ndangaan ak Loul Sessène ci Sénégal boo tey boo gisee tali tali yu nekk Dakar boo gisee hôpitaux yu nekk Dakar Touba Diourbel fépp mais loolu mënul am Sénégal ndax man nag dama yaakaar ne ñun lu ñu yaru du ñu lakk du ñu def leen xanaa peut-être loolu la ndax tey mënumaa imaginer tey tey ñun ñi nga xamante ne ak effort yu ñuy def tali bu daggee tali bu daggee ñu dem wut ay saaku defaraat tali bi xaaruñu état mais ñooñu dañoo neex a jàppale ki nga xamante ne ñun wax billaahi wallaahi ñun mosuñoo sax def un pas boo xamante ne day yàqal état euh, euh, ñun dañoo respecté li nga xamante ne état moom la moom duñ ko làkk duñ ko laal dañ koy defar mais nag trop c'est trop dafa mel ni nguur gi il faut ngay def doole ñu door a xam ne kii mu ngi exister comme ñun defuñu doole euh, dañoo yaroo ak loolu nguur gi nag du seetaan population joof yoor uh-huh. ak loo xamante ne ndoxu joof yoor suñu yaay yi dañoo root a guddi maire boo gis mu ngi woow xam nga lan la ko woon guddi deux heures trois heures du matin lay yeewu juróom yaa ngi soulevé Mamadou <laughs> yeneen yeneen yeneen problème <laughs> a wax moo tax ma wax la ne ma génn tuuti ci santé santé bi voilà léegi nag may demandé may dellu siwaat ci santé <laughs> may demandé naa la ko moo voilà may wax ne eh, eh, eh, lu mu dati ñu bi di dund waxtaan déggoo sànq ma man la waxtaan la lu ngeen bëgg voilà loolu moo tax nag ma bëgg a extérioriser li nga xamante ne moom lay population di Diofior voilà c'est ça mais tey ci lañ ñëwoon voilà mais n'empêche dañ dañ dañ leen di may ngeen ngeen duggaale foofu foofu aussi mu nekk yeneen problème donc santé bi kese moom moo posé problème actuellement ci Diofior a mhm. yooyu ngeen ngay wax ak li ngeen di xaar mu ñu yóbbu ko assemblée incha allah mhm. dina am ba cette situation nga xam nekk na fii ci Diofior incha allah moo xam muy ci secteur santé bi mhm. euh, ci école bi ngay wax ak xale yi entre autres li ngeen di am problème incha allah jàmm ñu mën ko saafara voilà di woowaat aussi euh, mhm. Marie Coll Seck mhm. nga xamante ne moom mu leen defaral euh, voilà moom mu ñu may lii doomu Diofior la mhm. doomu Fimela la doomu euh, nu mu tati Djilor la moom aussi yaakaar naa ne technicien supérieur la OMS organisation mondiale de la santé yaakaar nekk nekk nu mu tati nekk conseil spécial du président de la république koo xam du dund lii moom aussi war na cee dox wax ci ba hôpital yor am hôpital bu bees ay services yu bees ay services yu baax ay services yu mucc ayib pour bu ko defee rek loolu bénéfice am la ndax dama koy wax setam ñëw na fii setam doomam Mokhtar Ba moo ko fi indi kon moom gis na hôpitalu Jëfër xam na hôpitalu Jëfër lu ñuy dund voilà di leen gërëm bu baax a baax di leen remercier euh, euh, mhm. di gërëm aussi équipe technique bi nga àndal yëpp mhm. euh, di nuyu également Lamine Senghor mhm. di ko ñaanal di ko ñaanal yàlla voilà doomu Diofior la moom aussi dafa bëgg Diofior dafa fonk Diofior voilà di ñaanal aussi seen directeur di wax ne Leral TV ca kaw ca kanam allahumma amin aca waxtaan bi neex na lool mais xam naa nag sama gaa yi ma àndal bëgg nañ fi fekk attaaya dañu bëgg attaaya wala gerte. wala gerte gerte moom di ngeen ko am. <laughs> nañ ko am waaw ah, garaawul su ma su ma su ma demee Diofior dinaa su ma demee na gerte. mais ataaya moom joxuñu ñu ataaya. j'espère que balaa <laughs> en tout cas ñu remercier bu baax a baax remercier également sa sa gars yi vraiment c'est important waxtaan bi am na solo ñuy am yaakaar rek ni jafe-jafe yi nga moom moo nekk fii ci Diofior jëm ci wàllum santé beeg yeneen problème yi allah rabbi dinañ ko ko saafara euh, donc autorité yi fi nekk aussi muy ñaari député yooyu ngay wax dinañ ci def ay Diego mais également le maire parce que bu ñu jugee fii dinañ dem euh, seeti ko. Mhm. ngir jeexal ñu lay remercier euh, en tout cas remercier également euh, waa mouvement nga xam éclaireur yi nga xam ñoom ñoo fi teew donc ku nekk xam na seen seen seen taxawaay que mu nekk loo xam ne vraiment yemu rek joof yoon ñu def liggéey bu am solo donc bu ñu ñëwee fii également ñu ko xam ñu ngi koy def ci santé bi di ko def également en dehors bu weesoo li nga xam ne moo di moo di moo di santé bi donc loolu dañ koy rafet bu baax a baax liñ ci gën a marqué également remercier di ñaan difficulté yi nga xam moom ngeen am fii ci Diofior incha allah rabbi ñu ñu ñu saafara ko donc très rapidement xam naa bu ñu jugee fii dañuy dem seeti le maire avant ñuy tëj li nga xam ne moo di émission bi comme ça moom également dina ci mën a prononcé wu voilà ñu ngi ak euh, honorable Karim Sène ginaaw bi ñu jógee ci centre euh, de santé bu Diofior euh, ñu ñëwoon fi ci seen émission leeral askan bi sekk nañ nag ak ñoom waxtaan waxtaan nañ itam ak maire bu Diofior mais nag mënuñu jóge fii te waxtaanuñu ak honorable député Karim Sène ndax nag gis nañ ci waxtaan bi ñu waxtaan ak ak ñoom parce que yenn ci ay kàddu yu ñu dégg dañu wax que ni moom bokk ci ñi nga xam ni teewal nañu leen teewal na leen ca ca ca assemblée pencum ndaw réew mi euh, peut daf leen seetaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci centre de santé boobu loolu moo tax nag faaw ñu ñëw euh, laaj ko ci ngir mu indi ay leeral ci loolu nga xam ne wax nañ ko jëmale ko ci hôpital boobu honorable ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay euh, di nuyu waa Leral TV di am mbégte wax dëgg yàlla ngeen ñëw fekk ma sama kër fi mu laa ñëw wax dëgg waxtaan si ci ak man ci mbiru hôpital Diofior mu nekk lu ma neex aussi Leral TV aussi nekk euh, télévision boo xam ne wax dëgg yàlla dama koy seetaan ndax émission yi ngeen di def euh, jaar na yoon trop euh, may remercier aussi seen taxawaay bugg leen wax rek ne man d'abord je suis un produit de l'arrondissement de Fimela je suis un produit de la commune de Fimela je suis un produit du département de Fatick et de la région je un produit du Sénégal euh, adduna nag euh, dafa gudd tànk xëy na député laa waaye ñëpp a ma euh, muy département bi yëpp te commune Fimela wala arrondissement Fimela kenn mënu ko développer te tuddoo Diofior mënta ne waaw ndax ñooñu itam ñu baax lañ ñun itam arrondissement bi benn district lañ am. muy district Diofior moo boot arrondissement bi yëpp comme ni ma la ko waxee sànq kenn mënul développer arrondissement xam laa bàyyi Diofior waa Diofior xam nañ man xam naa du dëgg bu dee euh, euh, maanaam dama leen seetaan xam nañ xam naa ndax euh, jarul wax ndax ñoom xam nañu li may dund ak ñoom xam nañu également aussi li may dund ak ak arrondissement bi rawatina département bi ñun nag ay député lañ liñ mën mooy def un plaidoyer te ba mooy def plaidoyer eh, hôpitalu Diofior booba maa nga conseil économique j'ai fait deux mandats mandature au niveau du conseil économique social et environnemental et Eva Marie Coll Seck bi mu nekkee ministre mun na mën na mun na témoigner loolu l'actuel ministre de la santé Marie Khemesse Ngom bi ma jëlee parole à l'Assemblée problème mu hôpital bi laa njëkk a wax parce que bii mooy suñu ñaareelu session bi mooy sama deuxième session à l'Assemblée on est dans les commissions demaguñu sax plénière ministre de la santé sax jëlaguñ ko en commission parce que à l'Assemblée il y a jours de commission nga xam ne c'est huis clos dans une salle avec les députés et les les ministres maintenant 21 jours de commission de plénière plénière nag ci ngeen di gis télévision ku ne di wax di wax lu dëgg mais hôpitalu Diofior ba keroog bi mu amee problème man fii laa jóge dem hôpital fekk leen fa fekk fa Idrissa bi nga xam ne mooy infirmier major bi nga xam ne moom mooy responsable syndicat euh, euh, infirmier ak médecin ya fa ne ma jël sama téléphone woo woo le directeur le conseil technique numéro un du ministre de la santé muy docteur Sarr ma jot ko explique ko situation délabrement ak hôpitalu Diofior ñoom ñu ngi toog ñoom ñëpp du dëgg ma jëlaat moom moom moom mu jox ma jël euh, sama portable jox ko médecin Diofior bi parce que le médecin en personne dafa voyagé woon mais son adjoint mu wax ak moom ñu visiter salle bi nga xamante ne ni pratiquement état bi moo ko moo ko moo ko moo ko def moo ko yokk foofu ci hôpital bi ñu ne la seule solution mooy ñu toxoogum ci batiment boobu kon xam nga li ma wax mënu ma ko inventé ñu toxoogum ci bâtiment boobu en attendant ñu réfectionné batiment bal ñu daane ko yëpp ba mu jeex. bâtiment bi ñu nekk actuel. mais mais bien sûr mooy li ma la wax rek cest dire que situation bu ñëwee toujours il faut nga wut ay solution comme lii ñëw na te batiment boobu pare na te ñun ñëpp jëf yor la ñuy dawal kon li gën li gën mooy ñu xool naka la ñuy def ba mun a toxu foofu bi ma ko bi ma pare ma woo euh, le directeur du JEM Amat Diouf nga xam ne moom mooy moom mooy yore construction ak lépp ci hôpitaux yi ba ma ko jotee explique ko la situation mun a ma dinaa fexe def descente à Diofior moom jóge na dakaar ak équipe ñëw ñëw Diofior jour bi ñu ñëwee dafa tombé mu am réunion à l'assemblée ñu woo ma téléphone ne ma on est ici à Diofior foo ne fii laa ma ne ko noonu maa ngi à l'assemblée mais comme mairie Diofior baa ngi fii amul problème waxtaan leen ak moom avec le médecin do Ndiaye médecin euh, bu bu bu hôpital bu Diofior donc euh, loolu yëpp ñu ngi koy def bon politicien nag lu ñu naan daanu dajul suuf te mënuloo aussi def lu neex ñëpp. du dëgg waaye euh, ñi population bi nañu xam ne képp kuy def politique ci sa zone li ngay ñaan mooy sa zone avancée te ba dëgg yàlla joof yor franchement man li ma leen xamee mooy liggéey ñàq jëriñu kenn xamu leen ci ay détails wala ay caaxaan. hôpital ba aussi euh, man ña fa nekk yëpp personnel ba yëpp liggéey lañ leen xame mois j'ai eu la chance avant que je sois le président de la communauté de Fimela en 2009 j'ai été président du comité de santé nekk naa trésorier comité de santé xam donc euh, maanaam sekkal yi problème yu sew sewaan yi am yëpp ci hôpitaux yi ndax boo demoon ci poste de santé de Fimela bu ñu la waxee sama jaar-jaar ci wàllu santé dinañ la ko dinañ la wax ne de poste yi mu la wax yëpp occupé na ko fi kon xam naa mbiru santé du dëgg balaa ngay euh, def lan il faut nga weer donc lépp état bi seen taxawaay lépp lu mu ñu war a def nañ ñu dimbale wax dëgg yàlla hôpital Diofior espace ba yaatu na rëy na nañu dimbale defaral ñu ko xam nga arrondissement Fimela cinq commune la am yàlla commune de Loul Sessène la commune de Djilas de Diofior de Fimela e de Palmarin boo xoolee boo globalisé on est plus de cent mille et quelques habitants arrondissement bi arrondissement bi on est plus de cent mille habitants la commune de Fimela bi ma lay wax nii on est à quarante huit mille habitants Fimela kese ya c'est rare nga gis au Sénégal une commune qui a trois lycées mixtes Fimela par exemple de la sixième jusqu'en classe de terminal plus quatre CM nga xam ne kon arrondissement Fimela arrondissement bu rëy la Diofior nag c' est le poumon et c' est le cœur yaa ngi dégg de la de en de l' arrondissement de Fimela boo xoolee par exemple tey euh, en en matière d' éducation inspection IEF bi ñu bi ñu détaché ñu on dañu détaché ci Fatick arrondissement Tataguine ak arrondissement Fimela ñoom ñooy converger ñëw IEF Diofior ça veut dire que kon Diofior am na taxawaay ah ci biir arrondissement bi rawatina ci commune bi kon ñun ñëpp li ñu war a def mooy ñu ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi xam ne xeex bi du xeexu politicien kese mais xeexu ñun ñëpp la te euh, fii may wax ak yow nii état bi xam na loolu soo demoon tey hôpitalu Diofior nga xool tey am na ñaari ambulance yoo xamante ne nii ambulance yoo xam ne man maa ko exonéré man mu ñëw ci turu commune Fimela ñu yóbbu ko ci hôpitalu Diofior boo ñëwee sama buntu kër nii am na ambulance bu fi ne am na ambulance bu ne ci hôpitalu Fimela ci poste de santé Fimela waaye saa yu ko médecins yi jox soxla dañu ñëw jël ndax loolu mooy yoon parce que ñun dañu dënk santé muy compétence buñ bu ñu transféré aux collectivités territoriales kon luy doxal santé itam dañ ci war a jàpp mais am na ñun fu ñu mën a yem bu ñu waxalee rek dëgg du dëgg am na ñun fu ñu mën a yem li des nag ci état la te incha allah wax dëgg yàlla ministre bi waxtaan nañ ci bu baax échangé naa ci ak moom woo naa ko téléphone sax ne ko waa Leral TV ñu ngi ñëw jóge nañ jofe xam naa nañ ñëw interrogé ma mais dalal na sama xel loolu moom du ma wax nag li ma wax yëpp mais dalal na sama xel expliqué na ma ne incha allah euh, euh, honorable député Diofior euh, nañ xam ne dinañ ci taxaw mën na ko amat jéem ci boppam amat Diouf nga am ne le c'est le directeur du jéem ñëw na fa sax tout récemment kon góor góorgóorlu leen euh, espace ba yaatu na ngeen yokkal ñu ay bâtiment du dëgg ñu am am ñu am hôpital de niveau niveau deux niveau trois y a de l'espace am na espace comme am na espace nag wax dëgg yàlla nañ ñu dimbale Euh, yokkal ñu ko ba nga xam ne dootul jaar sax ñuy jéegaan dem ba Fatick am na yoo xam ne on peut les traiter à partir de Diofior ñun am nañu am na nañu euh, un terrain pour un centre de santé mais buy sogondee hôpitalu Diofior du dëgg mais hôpitalu Diofior mooy ndey li yaa ngi dëgg mooy district bi mooy baay mooy ndey mooy lépp képp ku fi yeewoo tey ah, ci arrondissement bi sa xeex numéro un mooy naka la ñuy def ba hôpitalu Diofior vraiment nekk hôpital de niveau bi ñu bëgg donc loolu euh, ñu ngi koy xeex ñun ñëpp nag maire Diofior moi je je salue de passage Youssou Diom nga xam ne franchement lu yënd ci lu yënd ci man fanaan ci moom mu ne quelqu'un de bien waa Diofior aussi man man sama bopp personnellement aw mag ñoom xaar ma yàlla ñu ma bëgg lañ su ma demee Diofior damay mel ni comme man maa ngi fi laa aw ma xaar ma yàlla ak ñeeket ñu mais xam nga doomu adama ndeysaan ba boo fekkente ne tey soxla nga wala nga am lu la lu la lu la euh, maanaam loo xam ne da la tënk da ngay dem ba dangay ngay mere sax politiciens yi da ngay yaakaar ne politiciens yi la te Sénégal dafa yaatu ni may def taxawee assemblée di plaider noonu la beneen député di taxawee di plaider. waaw bon comme li ma wax sànq rek dama ne euh, waa Diofior maanaam yéene bi. képp ku yeewoo fii ci biir euh, arrondissement Fimela jëf yor ngay tiitaroo ndax opportunité bi la ñu am xëy na nag euh, comme li ko wax ci olof daanu dajul suuf du dëgg ensuite boo nekkee un responsable politique bo am ñoo xam ne euh, politikuñ la ñuy gis mooy ah, lii bu amul rek politicien yi la te un budget prévision la boo nee tey xayma naa lii xayma lii man parce que man ku ma waxoon ne heure bii ren na fekk hôpital bi parewul man la sa pas possible man ci réflexion bi parce que on avait voté dans le budget de l'argent qui devait directement entrer sur la reflexion de l'hôpital mais ah comme ni ma la wax rek réew mi ni mu doxee ren ak aussi situation économique bi du dëgg voilà donc euh, bari ay bruit bari ay yàqu-yàqule ah, ah trop de perte ak aussi la le coût de la vie du dëgg ah état bi di subventionné fii euh, ceeb bi fii di subventionné fi xam nga donc y beaucoup de trucs yoo xamante ne ni état aussi euh, bon euh, mënatul mënoon égal li mu bëggoon def yëpp du dëgg donc pratiquement donc comme cela veut comme même ñun maire yi da nga voté un ne lii su ma ko amee dinaa def lii def lii mais su fekkee ne say recette egguñu foofu du dëgg ah, li nga li nga mun a def ngay def dëwén la nga deful nga tàmbale ci loolu def leneen loolu rek moo ci ne mais eh, nañ ñaan yàlla vraiment eh, yàlla munu loo ñu ko comme ministre bi yéene bi mu ci am bi ma waxtaan bi ma waxtaan rek moom li mu wax dégg naa ko te xam naa ne incha allah eh, balaa ñuy jàpp heure bi déwén ah, dinañ xam ne hôpital ba wax ji ñu doon wax egg na fa mu war a egg la meeru Diofior dañ bëggoon ci Diofior la meeru Fimela laa bëgg la meeru Loul Sessène bëgg la meeru Palmarin bëgg la meeru arrondissement bi yëpp bëggoon ci Diofior am nañ ko ndax du man kese du man kese may plaider ñun ñëpp on a créé ce qu'on appelle une intercommunalité département Fatick région Fatick arrondissement Fimela moo njëkk a créé intercommunalité li tax ñu ku ñu def ko itam pour ñu yëkkatandoo di doorandoo di daanandoo donc euh, loolu la woon ma kontaan bu baax ci ci waa Leral TV nag waaw euh, vraiment di leen di ñaanal vraiment jàmm euh, li leen yëkkati Dakar ba fii ngeen ñëw jof Diofior ñëw ba fi mu laa nemee ko suñu yàlla na ko yàlla fay voilà ñu ngi ak euh, monsieur le maire di wuyoo ci turu Youssou Diome comme ni ñu leen ko waxee woon euh, sànq ak ñoom Mamadou ñi nga xam ñu ngi doon waxtaan ak ñoom ci ci ci euh, centre de santé bi nekk fii ci Diofior ñuy wëyal ba tey li nga xam moo di seen émission li askan bi dund mënuñu nag ñëw ci ci ci Diofior te duñu waxtaan ak ak maire bi ndax mooy kilifa gi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu leeral ak équipe bu am solo bi nga xam ne moom ngeen indi. ak équipe bu am solo bi nga xam ne moom ngeen mobiliser. depuis mhm. Dakar ñu ñëw ba fii. Mhm. kon vraiment ànd ak suñu mbokk euh, seen euh, collègue euh, sernon donc maa ngi di vraiment de Diofior Diofior bokk ci département de Fatick région de Fatick nekk à peu près à cent kilomètres de Dakar quoi mhm. voilà dinañu ñëw ci ci ci point yu bari mais d'abord ñu ñu njëkkee ko ci li nga xam moom lañ doon waxtaanee sànq ak ak ñoom Mamadou mu jëm ci centre de santé bi bi nekk fii ci jof Diofior nga xam ne jafe-jafe yi bari na mais d'abord balaa ñu ciy gën a solo ñu ñëw d'abord ci ci bâtiment bi nga xam récemment mi ngi menacé ruine ba ñu jëlee leen fa euh, yóbbu leen ci beneen service à côté muy maternité donc mu nekk vraiment une situation boo xamante ne sànq dégg nañ li ci Mamadou wax ak ay naataangoom yim yim yim toogal d'abord la ñuy commencer waxtaan bi naka nga jàngatee cette situation. waaw dëgg la parce que xam sànn santé bi bi ñu koy tabax c'est depuis 92 euh, euh, avec euh, les éclaireurs Sénégal ak éclaireurs de Finlande bon liggéey bi yàgg bon c'est normal bâtiment bi aussi avec le temps mu dem ba vraiment mu yàqu complètement ba commission bi ñëw ne ñii moom dañ leen war a dindi fi bon depuis loolu aussi ñun en tant que autorité Euh, locale euh, bind nañu autorité centrale yi parce que xam ngeen ne c'est vrai que santé euh, ci compétence yu ñu décentralisé la mais compétence collectivité locale yi dafa am fu mu yem mooy ci wàllu médicament ak wàllu jàppale centre de santé bi ci ay fourniture mais quant à la constitution d'un centre de santé état bi moo koy def bon donc alerte nañu état bi à plusieurs reprises ba yàlla def na ñu agsi ci étape bi ñu obligé euh, délocaliser carrément tous les services ñii ñu indi leen ci euh, pédiatrie bi bon maa ngi ci profité di remercier aussi euh, borom pédiatrie bi c'est un privé de Diofior di Moussa fay mais aussi waa odonto bi dentaire bi ñu obligé loué leen donc kooku mairie bi moo ko def mairie bi obligé loué leen benn local bu nekk a côté mhm. noonu la ñuy def daal pour mën a euh, décentraliser les services en attendant que état bi achever les bâtiments yoo xam ne ñu ngi koy tabax mhm. pour euh, vraiment euh, reloger tous les services mhm. lan lan lan mën a jàpp ne en tant que autorité moom ngeen defar li nga xam ne ah, moo di hôpital bi effectivement comme ni ma la wax rek en tant que autorité locale suñu compétence yi moom mënul sori mais quand doo toog rek di xaar état central bi il faut que am euh, li li ñu ci def euh, mooy tax euh, à chaque fois ñu on essaie de faire quelque chose bon soo xoolee le bloc radiologique moom bâtiment foo xam ne foofu la ñu def radiologie bi mairie bi moo ko tabax en 2015 avec un montant de trent 32 millions donc foofu la ñuy loger l'appareil radiologique mooy le bâtiment qui est en Euh, en orange mu nekk foofu euh, à part cela ni au niveau donc de la mairie euh, tabax nañu aussi le logement du du de médecin adjoint ñu ñoo ko tabax donc du ñu toog rek di xaar on a même prévu aussi de de faire d'autres actions yoo xam ne ay tabax la au niveau donc du centre pour jàppale donc le centre de santé bon à part cela aussi bon les fonds de dotation comme ni ma ko waxee euh, à chaque fois chaque euh, budget dañuy jégalal au moins euh, des sommes assez importantes donc pour en matière de, de médicaments mais en matière de consommables bon ça le, le fonds de yoo xam ne dañu koy def bon cette année aussi on a prévu d'inscrire dans le budget le recrutement au moins d'un agent de la de la santé donc euh, action yooyu la moom mairie bi prévoir vraiment pour le centre santé. ñu gis ne euh, lu ci mel ni batiment bi nga xam ne mi ngi menacé ruine euh, am na batiment bu yees boo xam ne taxawal ngeen ko à côté mu nekk maternité yeneen service yi ngeen déplacé ko ci ci ci ci ci yeneen. faneen donc mu gis ñu gis ni def nekk na benn jéego boo xam ne def ngeen ko ci ci ci hôpital bi naam service yi ngeen déplacé moom mu wute arrangé wul euh, ñi nga xam ne ñoo di euh, commune yi nga ñoo bootu ci hôpital mais loolu dinañ ci ñëw la tax ngeen xaar ba situation bi jéggi dayoo ba bâtiment bi di di di waaj a waaj daan wala sax yenn yi commencé daan ngeen doog a jóg di ci di ci wane seen bopp. waaw en fait euh, tooguñu parce que mën naa wax naa ne. depuis le début la ñu commencé bind autorité le ministère mais le ministère de la santé en 2016 avait inscrit la réhabilitation totale du centre de santé dans son budget propre bon malheureusement avec les lenteurs administratives il y a eu des reports d'année en année ba ñu àgg si euh, deux mille euh, vingt vingt vingt deux bi yaakaar naa sax la ñu démarré liggéey bi mais euh, depuis 2016 ça a été bien inscrit dans le budget de l'État donc euh, ñun en tout cas au niveau de la mairie moom on veille on veille daal dañuy veiller pour euh, pour vraiment lu fa yàqu aussitôt parce que dañuy tenir ay réunion avec euh, les services de la santé bon en plus xam ngeen ne les comités de santé actuellement mhm. c'est des comités de développement sanitaire yoo xam ne c'est le maire lui-même mhm. qui est le président de du comité de de de, de développement sanitaire donc man mii maa le et tous les trois mois def ay réunion de situation centre santé bi. d'accord yaa ngi wax sànq ci ci lu jëm ci wàllu médicament dañuy ñëw ci euh, jumtukaay euh, sànq ñu ngi wax ak euh, Mamadou hôpital bi soxla nañu ay jumtukaay mm-hmm. donc peut-être lan moo tax côté boobu maire bi apporté wu leen ci seen aide. bon jumtukaay yi effectivement vraiment moo gën a manqué ci hôpital bi xam nga pas hôpital centre santé. xam nga bon j'ai prononcé le mot hôpital parce que moom la population bi di wax mais xam ngeen ne euh, ku fa ñëw xam ne vraiment il manque euh, tous les équipements amuñu appareil échographique pour les femmes amuñu bloc opératoire donc ku fi tànkal tànkam dam dañuy obligé évacuer jusqu'à Fatick wala feneen donc euh, on a vraiment lu xaw a tane mooy on a un laboratoire mais sinon au niveau aussi euh, médical médecin def na plusieurs fois la liste de tous les besoins on l'a mais ñun li ñuy def au niveau de la commune mooy suñu partenaire yi à chaque fois que ñu am le les expressions des besoins dañ ko envoyé à nos partenaires donc partenaires yi xam ne euh, étrangers yi surtout ñu xam ne moom le mairie di di liggéeyal ñun dañuy envoyé donc euh, vraiment on a euh, envoyé beaucoup de partenaires donc euh, des des expressions de besoins pour ñu mën a dimbali euh, centre santé bi parce que c'est des équipements qui coûtent très cher. Mm-hmm. donc ñu en tant que collectivité locale lu ñu mën dañ koy def mais lu ñu mënul dañu jéem a euh, effectivement demander les partenaires étrangers mais aussi demander état bi. donc moom mhm. mu nekk mu am ñaari député yoo xam ne nekk nañ ci seen diwaan bi sànq ñu ngi waxtaan ak euh, Mamadou ñu euh, gis ni ñu ngi wax que ni peut-être assemblée bi ñu nekk d'abord nga xam ni dañu fa nekkal askan wi ñu euh, gis ni parfois ñu pointé leen du doigt comme quoi que dañ fay nekkal seen bopp mais est que mënuñu dëggal loolu bu fekkee ni jafe-jafe yi fi am yëpp jàpp nañ ne ñoom député yi tax amuñu ci benn taxawaay pour jafe-jafe yi wu fi ci Diofior bon si parce que en fait euh, mën naa wax ne le centre de santé quand même du centre de santé pour Diofior kese parce que district sanitaire la xam nga ne district sanitaire day couvrir au moins plusieurs communes bi district ça couvre les, les cinq communes Loul Sessène Djilas Diofior Fimela ba Palmarin mais même am na ñu nekkul ci commune yooyu sax dañuy ñëw parce que il fii zone frontalière la am na ñuy jógee ay Dionewar euh, Bansoul Bassar ils viennent directement au centre de santé donc centre de santé bi mën naa wax ni mooy mooy la porte d'entrée même à partir de la Gambie donc mu nekk centre de santé bu district boo xam ne dafa am am solo donc euh, ku ci mën a dox rek euh, tous les responsables politiques ñu ngi ciy dox bon maa ngi ciy remercier aussi le l'honorable député Karim Sène qui aussi mon collègue maire parce que aussi mu ngi ciy dox peut-être euh, dox bi moo génnagul mais moom ci boppam day dem ba ministère donc euh, à chaque fois daf may rendre compte donc bu ci dox lu mu mën euh, aussi les les autorités yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la région ñoo ñëpp ñu ngi ci taxaw mais xam nga santé dafa nekk question tellement délicate urgent mm-hmm. bu xam ne soo xaaree benn jour rek mm-hmm. mun nga ci indi mun nga am ay jéey yu loolu moo problème santé donc mm-hmm. tout est urgent en santé mm-hmm. mais euh, je sais que avec mesure ñu jël ni si euh, quelques mois certainement le centre vraiment dina dina taxaw mm-hmm. euh, parce que état bi à part donc euh, les quelques modifications aménage aménagement yi muy def ni dafa prévoir vraiment tabaxaat carrément un centre de santé donc euh, digne de son avec un bloc opératoire. Mm-hmm. donc euh, te centre de santé avec un bloc opératoire. Mm-hmm. Euh, ça coûte moins de de de deux milliards. donc état bi déjà loolu la jël. pour programme ngeen toll projet bi. effectivement l'état est à la recherche de financement mm-hmm. mais ñoom ci seen bopp yaakaar nañ daal d'après le ministère lu mu wax maa ci profité di remercier le ministre. mu ne ñoom ci priorité des priorités la Diofior bokk. Mhm. donc balaa ñu defatil dara mooy centre de santé de Diofior ñu def ko ak bloc opératoire. à le centre de santé au niveau du conseil départemental de Fatick. Mhm. Euh, ci investissement prioritaire yi comme Diofior c' est une zone euh, mën naa wax frontalière. Mhm. Euh, stratégique. a le, le conseil départemental doit prévoir de faire un hôpital de niveau 1 boo xam ne du nekk si centre santé bi centre santé bi dañ koy defar bloc opératoire mais dañu créer beneen hôpital hôpital bi euh, lotir nañu déjà le le terrain donc c'est à l'entrée de la commune donc pour quatre hectares et loolu su amee dina mën a couvrir tout toutes les populations non seulement de la zone ouest de Fatick mais aussi même des îles du Saloum parce que xam ngeen ne Euh, tout le toute la tout le département de Fatick euh, benn hôpital rek la am mooy l'hôpital de Fatick donc c'est normal que Diofior qui est à l'ouest avec ses populations moom itam dafa war a am popula dafa war a am hôpital moo tax fii day am hôpital de niveau un Fatick va passer à un hôpital de niveau trois loolu mooy planification xam ne moom la conseil départemental jël parce que man mii dama bokk ci conseil départemental moo tax en tout cas am na am na am na loo xam ne euh, faaw faaw monsieur le maire ngeen ngeen ci wax peut-être projet boobu ngeen accéléré ko mu gën a gaaw parce que service yi ngeen déplacé nii fii maternité moo fi nekk urgence ñu ngi koy dafa ñu ngi koy euh, taxawal pareegul yeneen service yi ngeen déplacé ko mm. ci hôpital euh, centre de santé boo xam ne ëmb na ay ay bod na juróomi commune ay dëkk yu bari donc imaginel nga nga ñëw fii tey jii nii ñu ñu yabal la ci beneen service nga war a déplacé wu loolu quand même day metti ci ci ci ñoom. Mm-hmm. donc mu nekk projet boo xam ne j'espère que di ngeen ci di ngeen ci liggéey ak état bi mu mën a mu mën a gaaw yemb. Mm-hmm. effectivement li nga wax c'est c'est vraiment pertinent te dégg la euh, urgence la. Mm-hmm. il faut que euh, qu'on vraiment ñu mette euh, la pression et même qu'on qu'on se fait violence sur nous-mêmes sur ñun ñëpp état bi toute la population ñëpp ñu jàpp ci pour que comme ñu ko waxee dans un mois. ñu mën a recaser waat vraiment tous les services au même endroit uh-huh. bon euh, l'État a pris ses engagements uh-huh. mais ñu ñëpp dañ ci war a jàpp pour qu'on reloge tout le monde dans un mois c'est-à-dire le 31 uh-huh. octobre bii la ñu wax le 31 octobre tous les travaux doivent être achevés en tout cas ñu lay jaaf jaajëfal bu baax a baax monsieur le maire ça a été un plaisir ñu jógee ba Ndakaaru ñëw tey seet si leen mm-hmm. ci li askan bi di dund émission la duñu ko yemale rek Ndakaaru dañuy génn également dem ci yeneen dëkk yi euh, tey nag ñu ñëwoon ci ci ci Joof yoo xam dañ fi ñëw seet si leen parce que tamit ci yeen bokk jagleel leen euh, émission bi ñu ngi lay jaajëfal en tout cas en tout cas kontaan nañu topp mm-hmm. en tant que maire de la commune parce que mm-hmm. lii day wone euh, suñu dëkk xam nga dëkk dëkk gox goxaat yi lii dafa baax ci ñoom parce que il faut que nit ñi xam problème yi nit ñi dund yéen ñoo ngeen ba gisal ngeen seen bopp euh, centre de santé boo xam ne mën naa wax ne plus de deux cent mille habitants la couvrir di am ay ay problème loolu c'est vraiment su ngeen ko wone man duñ leen di jëf-jëf bu baax di leen di ñaanal euh, leeral euh, TV. Mhm. gën a développé wu. vraiment di génne ay ay émissions yoo xam ne njëriñu réew mi la parce que lii mooy njëriñu réew. Mhm. Euh, réew moom euh, dañuy xool lan moo baaxul. Mhm. ñu jéem ko wax. jéem a indi ay saafara. parce mhm. ñu lay gërëm aussi euh, monsieur le maire li askan bi dund ñu ñëwoon ci Diofior waxtaan ak euh, ñoom ci jafe yi nga xam ne moom lañ moom la ñu am gis nañu ko mu nekk centre euh, centre bi nga xam moo fi nekk menacé woon ruine tax ba ñu ñëwoon seet leen waxtaan ak ak ak ñoom donc gis nañ moo waral ñu déplacé yeneen service yi donc mu nekk vraiment une boo xam ne quand même le maire wax na ko comme que ñu ngi ci benn projet di ci liggéey ak état ñuy am yaakaar mu gaaw yemb parce que métti na ci centre de santé boo xam ne euh, boot na ay ay ay commune yu bari comme ni mu ko waxee sànq ñu ngi koy remercier remercier également euh, Mamadou Sànk ak naataangoom yu mu toogaloon euh, foofu ci waxtaan bi ñu sekk ak ñun remercier également équipe technique bi ñoom maaw mi paaw ma Babacar également ñu ngi koy remercier Lamine Senghor également nekk doomu Joof yoo monsieur le maire wana ko sànq ak Mamadou ñu koy remercier di leen di jox di daje très prochainement incha allah ci seen beneen numéro li askan jaa ngeen jëf